barke maam Sara Fall tey noo ñëwee. sant sëñ Tuubaa képp. xam naa lépp dangay bañ ku la laaj rek ba nga sonn. non man boo ma laajee tamit damay xool li ma li ma mën a wax ma wax ko rek li ma mën a wax moom du ma ko wax. bëgg nga wax ko par force la. du par force parce que moomoo leen moom. loolu loolu depuis kañ la. réew mi yëpp xam nañ ne maa sëriñ saa yow man du ma topp jigéen man baax aju tubaarkàlla mu ngi noonu ah, ñu fekk ko fii nag nga xamante ni moom mooy Pikine ah, bay laa woote ah, ànd ko ak waa Ramadan social nga ñëw dooleel si ko jàppale ko ñu bëggoon rek nga wax ñu noo dëndee bés bi tey. waa di sant ndax man moom wax dëgg yàlla bu ma soñoon ci lii rek lañ may woo ndax yàlla dañoo dimbali gëmuñu yaakaaruñu bëgguñu ku dul Cheikh te moo woon dabe waaw man nag ku ma bu ma sa yoon may woo ci bernde nga may woo ndax waa jooju ñu yaakaar muy maam Seera Fall bokkoon na ci ay diglem moo tax ñu koy jaayante di ci def suñu kéemtalaay kàttan waaw dama dama ci laa ne sax ndax chaque jour damay joxe ndogu mais comme bay laa sama mbokk taalibe la di suñu grand di di vraiment grand bu baax di ne ci ñun ci fa ñuy liggéeyee bu ma woowee war naa mën a bàyyi yi ma jàppoon ñëw teewal ko quoi parce que sekk nañ ko. Hmm. ñu bëggoon rek nga yëkk ci ay kàddu jëmaleel bi ci kii di Bayla. waaw ah, moom ci Bayla laa wàcce nii. Hmm. ma ne maanaam sa relation ak moom. Ah, mooy dafa di suñu mag. ñu bokk fu liggéey te dara ñaawul. ñuy ànd te bi tax. waa ñëw gën a gën a solidifier euh, ànd bi. ndax ñoo bokk fa ñuy liggéeyee tamit mu bokk ci sécurité bi. kon kañ kooku bu ma woowee am naa réseau yu bëri yu tax ma mën a ñëw waxa waxatuma mu may woo ci bernde kon kañ ñëw bi moom se sa par force. mais daa mel ni sa bopp nga doon berndeel parce que gis nañ la nga nga reer ba demee boor. waay waat ko <laughs> ay nit lay saraan waatal nax lekk na en tout gis nañ la nga reer ba demee boor daal. man sañu ma loolu balaa may génn kër ga dabaay day def ba mu baax. mënumaa lekk àll man ma célibataire suñu borom dimbale. dabaay jàpp si nopp bi euh, weeru koor bi ku ne xam na ni euh, lépp danaan tekk taxaw naka ngeen koy dunde di ci sant Sëñ Tuubaa rek ndax am na ñoo xam bu ñu sañoon nettali ko comme ñun yàlla def na ba ñu koy toog di ko waxtaanee mënuñu lu dul sant. alhamdulilahi rabbil alamin. gars yi gars yi nee nañ après koor gi réew mi dina daanu yow koor gi noo koy dundee. après waaw dañoo digge waaw hmm? ah, digge de bor la nañ ko fexe ba daanal réew mi rek réew de ku ko daanal di nga ko yëkkatiwaat <laughs> ku ne dañ jaam wàll de kenn moomu ko yàlla xam na lii après koor gi yàlla na yàlla def jàmm def sutura ah ñëpp am jàmm ba ku ne li nga bëgg sunu borom dimbali la ci moo antu ah te mu ànd ak taalibe barki maam Sara waaw euh, euh, Benjamin seen naw la woote suba ndogu moom tamit di berndeel. waaw ah, yoon la c'est normal ku ci ne da ngaa war a woote lii moom lu ci waay def defaloo kenn sa bopp nga ko defal kon ku ci woote war na wax dëgg yàlla di profité tamit di souhaiter une bonne fête à nos confrères chrétiens. di ñaanal tamit seen kii bi suñu borom defal lañ ci jàmm ñu yàgg ko teewee ñoom tamit ah xam ne ci population bi lañ bokk. Mm-hmm. ndax ñoo bokk réew mi dara ñaawul. macha allah am na dëkk yoo xam ni jullit yeeg catholique yi duñu xoolante kon ñun bu ñu demee bay duggante di demalante mënuñu lu dul sant yàlla di leen ñaanal suñu xaritu chrétiens yi ndax ñu maanu lañ ñu baax lañ ñu sell lañ yàlla na yàlla defal jàmm waaw barki maam Sara kon bon ramadan à vous tous à nous tous à baax wàlla